kon sëriñ bi comme ni ñu ko leeral léegi Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir al Khalifa la am tariqal muridiyya ñii ñooy délégation yi nga xam ni ñoom lañu invité woon ngir ñu ñëw ci xew-xew bu rëy bii xew-xew bu màgg bii muy màggal Touba di xew-xew boo xam ni yoonu murid moomatu ko Sénégal moomatu ko àddinaa ko moom ndax xew-xew la boo xam ni li fi bale yëpp leer la li fi bale yëpp mooy al uxuwa al islamiyya mooy frater musulman li fi balloo yëpp mooy defar jikko yi wane ak mbaax ndax sëñ Tuubaa ni ñu ko waxee léegi ci kanam xalifa léppam mbaax la moo tax àdduna war koo xam war koo dunde war koo dundal war koo yaatal te mbokk yi nga xam ñoom lañu invité kenn ku ci ne dafa am lu réy loo taxaw ci réew ma nga ne kenn ku ci ne jiite nga université wala nga jiite centre wala nga jiite tarixa moo tax ñu bëgg laa limal délégation yi kon délégation yi nga xam ne teew nañ fi bokk na ci docteur Mohamed Ajjan bi nga xam ne moo jiite faculté islamique bu mag bi ci daaru ci Turquie ci Istanbul mooy faculté kuréet Daaru Salaam Abdul Qadir Nour jiite université Chafii ci Somal nekkoon ancien ministre moo toog nii ci sa kanam ministre la woon ci gouvernement somalien waaye léegi dafa jiite université bu mag boo xam ne mooy jaamiatul imam Chafii Hitama Salim jóge ci réewum Rwanda réewu Rwanda xam ngeen réew moo xam ne minorité musulmane nañ waaye kaddu diine ja l'islam ci réew moom moom mi moo ko yor yor Fra moom ministre nga xam ni moom mën nañu wax mooy institution islamique bu gën a mag ci réew ma teew na fi jóge ci réewum Rwanda Mounir Saïd mi nga xam ni mbokkum palestinien la jiite kuréel bi nga xam ni dafay lënkale wàllu dimbalante ci réewu Afrique yi ak réewu Asie yi ñëwoon fi bu yàggul Cheikh Mouhamadou Mountakha suñ Mountakha invité woon ko ci jotaay bi moom it ñëw na teew fi ci bi Ahmad ci réewum Cachemire moom it ñëw na fi al imam Issa Said, jóge ci université Escandria moom it na fi Tawil di jàmbaarul islam ju mag ci réewum Bristol université euh, jumaa ja nga xam ne réew bu Saoudia ñoo fa tabax male mi ngi ni Tawil di borom xam-xam bu mag ke ca nekk waa Maroc waaye di dund ci euh, Belgique Fatih Abdul Qadir di borom xam-xam bu mag buy jaa xam ne euh, cosaanam Tunisie la waaye ma ngay ci institut bi ñu jàngalee ulum ak technologie ci réewum Turquie moom it ñëw fi docteur Khalid Touazeni di bindkat di écrivain di gëstukat jógee Maroc ñëw na fi suñu soppee Cheikh Qaribullah Nasir Kabara di xalif général bu Qadiriya amoon yéene teew am ngant ci xat-xatu ñëw yebal dir mi ngi ne toog di kilifa gu mag ci réewum Qadiriya yebal naqiful naqiful asraf fi Kano ki nga xam ne moo jiite shérif yëpp ci Kano ci Nigeria ni ko dem teewal ma Touba am na délégation mag ci réewum Côte d'Ivoire bi nga xam taalibe Serigne Touba ya fa nekk te bokk ci waa réewum Côte d'Ivoire ñoom it ngi ci jotaay bi gouvernement bu Gambie président bi yebal na délégation mag a mag woote nañu sànq ne ñu ngi dugg Touba le son excellence Jalal Malik Mohamed Sadis bu Maroc buuru Maroc yebal na délégation ne ñu nga xam ne ñu ngi koy def fële muy cérémonie officielle bi docteur Mazine Sharif bi nga xam ne moo jiite kuréel bi lëkkale borom xam-xam yëngatu ci wàllu tasawuf ci àdduna bi moom teew na fi Ahmed Warhan di kat di chercheur mi ngi nii di philosophe ñëw na fi def na ay taalif yu am solo léegi ci kanam Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ne mi ngi bind téere bu rëy ci wàllu yoonu murit mi ngi ci suñu mbokk Cheikh Abou Souaïbou Kébé nee na fas yéene balaa màggal déwén mu ngi téere boobu incha allahu taala Ahmed Bardada jógee Maroc moom it teew na fi daayratul ansar mi moo lëkkalee taalibi Sëriñ yi nga xam ne ay italien nañ ñoom it ñi ngi fi Cheikh Soufi Bilal Diallo bi nga xamni moy dafa yor ay Mali ba paré jité ni vice président conseil islamique du Mali momit mi ngi fi. réew Mauritanie xam ngeen ni borom xam-xam ya fa nek ak ak ci Touba actuellement. kon délégation yi nga nañu wuy si woté bi nga xamni euh, ko invité won ngir ñu tew ci nañu dal Dakar fa euh, fi ñoom ñëpp kontaan nañu ci dalal bi ci yaatal bi ci teraanga yi ci ubbiku gi ñoom ñëpp it télévision yi ñoo ne fii def nañu interview kenn ku ne ci ñoom wane na li mu yëg ci Touba ci defaru li mu yëg ci Touba ci dëkk boo xam ni si yëg nañu ñu ngi soog a dugg ci al madina islam yi ana musijida madina boo xam ne léppam lislaam la dëgg la na fu ñu tuddee lislaam di ko tuddee lislaam waaye fii li fi gis mooy lépp lislaam la ndax gis nañ lépp loo xam ne lislaam bëgg ko fexe na ba sëñ bi tere na ko ci te ñoom ñëpp ñëwee ba ci dëkk bi xam loolu lépp muy mbokk yoo xam ni ñoom daal ñu ngi wane seen mbégte ak seenu cofeel wali